السلام عليكم برملاك لاج بي بيت لاندي اندي سيدنا اليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت اختار في سيدنا بي واخني بروم معنى نغي ولبتي كو جبلو ياو دي سما واخ اك سما جيف ak lépp loo xam ne nekkoon naa di tànnal ko sama bopp maa ngi koy tuub muy laaj nag mu ne jan wax lay tuub ak jan jëf lan ak lan la tànnoon te bàyyi ko ba di ko tuub laaj bu am solo la dañ tuubaa dene tuub na ay waxam ak jëfam ak lépp lu mas di tànnal boppam di sëñ tuubaa di tuub tuub bakar lañ ci xam waaye ban bàkkaar dañ ne xasanaatul labraari sayyiaatul muqarrabin li rafet ci labraar yi labraar mooy gaay yi ñu baax yi jëf ju rafet ji ñu jëf ba naw ko ñaaw téef la ci ña jege yàlla dëgg li sëñ tuba di tuub noonu la demee moo di mu toll ni nga xamee ne waaye yàlla ni amul junne di waxe ne bu nit jublu woon ci yàlla téeméeri at walbatiku xefiinu bët rek dana ñàkk dana perte ci xefiinu bët woowu lu ëpp li mu amoon ci téeméeri at yi maanaam yàlla loo ko gën a jege rek sa lépp di gën a am valeur sa benn seconde mooy ëpp junni ati jaamu yàlla keneen ku agul ci martaba boobu weesu gi ñu nga xam ne nag moom la ñuy weesu fa ñu toll woon bu ñu geesoo seen gannaaw dañuy xeep la la wéyoon ba rus ba wan ne suñu borom teggin yi war ci suñu diggante moom joxuma ko ko lu mel noonu lay tuub minute bu ñëw seconde bu ñëw mu yokk ci boromam loo xam ne xel mënu koo xalaat loo xam ne moo ëpp fuuf la mu amoon ci li mu mas a jaamu yàlla ba bu muy tollu toll ba bu geesoo gannaawam gis ne fii toll woon na fi day am kersa rus rus goo xam ne moom lay tuubaat moom la yonente bi sallallahu di wax innahu la yuxaanu ala qalbi fa astaghfirullaha fi lyawmi miata marratin leer yi dana muur sama xol ba benn bis rek ma di ci tuub téeméeri yoon maanaam yokk gi muy yokk ci boroom gaaw gi muy gaaw bu geesootee gannaawam xam ne fii la toll woon borom nii la ko doon jaamoo nii la ko doon màggale nii la ko doon joxe teggin daf koy weesu weesu goo xam ne loola daf koy jàppe muy bàkkaar ba di ko tuubaat loolu mooy inna li yaxfira laka law ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima gis ngeen ci xasida yi ba saa yi ne sëñ Tuuba suñu borom lay tànnloo tuub na lépp lu mu mës a tànnal boppam ba suñu borom rek lay bàyyi moo koy tànnal lépp gedd na foñ na sànni na wàcc na lépp lu mu mës a tànnal boppam li ko yàlla tànnal rekk ci la jàpp boolewu koog dara te dootu ko booleeg dara ba bu koy fekki kon laaj boobu. laaj bu njëkk bi kii dafa wax ne laaj bi jotoon na ko fee laaj ak yi weesu maanaam daaw jéeg wala daaw mm-hmm. waaye daal eh, joxoo ko ci woon ab leeral. Mm-hmm. loolu da nga ko déglu woon. li laa jàpp mu di ko delloo nag ndax. daal li ñu mën a tontu la. waaw maanaam daal da ko delloo bu yow boo ko déggee da nga xam ba xam ndax mën nga cee tontu. wala lu dee lu ñuy tontu la wala lu ñu dul tontu. ndax en tey tamit jëmee àdduna sala bi wala taxul solo waxte tala ah, bi. ah tey tamit. jëmee àdduna sala bi wala taxul solo waxte tala bi. Hmm, wala taxul solo waxte tala bi. Hmm. donc dañ ko fee laajoon. Hmm. jëmee ji maanaam jëmee ji. jëmee ala wala jëmee. ah ah tey tamit jëmee àdduna sala bi. waaw ah, أعطيتني الجميع دون الثاني ولتقول السنة واحدة ولتقول السنة واحدة الجميع هو مولم لمصاب خمطة ساقطة ak li gën ci moom te xamu ko wala mu xam ko te sakkuwu ko mooy mboolem li nga xam ne moom jox nañ ko ko li nga xam ne moom su ko xam na ko bëgg ko sakku ko ak li nga xam ne bëgg na ko te jëm koo sakku ak li nga xam ne xamu ko ci li yàlla amee bool na ko jox ko suñu boo xam ne wala xaar sirran raaba an xayri muxi suñu borom bon nag te mbóot moo xam ne ump na ku dul woon suñu borom waxul suñu borom ak keneen la suñu borom rek ne ku dul suñu borom ump na ko lépp nga biir ump na ku dul suñu borom wala xaar sirran raaba an xayri muxi kon daf lay leer ne sëñ Touba jëmi boobu mu wax lu bokk liñ ko tànnal lu bokk kon liñ ko tànnal lépp jox ko ko liñ ko tànnal rek mooy li gën te mooy li gën ci moom te mooy li mu bëgg te mooy li nga xam ne moo moo moo am njëriñ kon bu ne jox nga ma li nga ma tànnal li mu ko tànnalul lépp mooy la gënul mooy nañ ko ko te du ànd ak rékki rékki yàlla daañu ko rékki nitu yàlla moroom nitu yàlla moroomu yàlla am dana ko rékki suñu borom dana ko rékki rékki rek dafa am ñoo xam ne wees nañ ko kenn du leen rékki xal-xalaatu ko lu ñu maye nangu ko mooy ré mooy rékki bit dana jaamu yàlla jaamu yàlla jaamu ba am leer bu màgg benn bis nit tooñ ko tooñ gi naqari ko rek suñu borom rékki ko am na ñoo xam ne duñu leen rékki waaye dañ leen di nattu sëñ Tuubaa gis ngeen ne ci géej gi na béréb boo xam ne dafa daan faral di toog di jaamu yàlla toog ba benn bis bi mu jubee béréb bi yëg gi mu yëg ne na koo sàppi rek ñu nattu ko ci suñu borom sotti ko ci ay junni mellantaan ñu sam ko di ko mat te sañu la waxut sañu la faxas nga xam ne moom kon duuna sala bi duñ ko si duñ ko rëccil dara duñ ko rëccil dara waaye daañu ko nattu ba nag itam day ak may rek mu ne mu teg ci affaire jami duuna sala bi wala taqulu su'la waxta talabi waaw ak soxlu mooy lan mooy li mu laaj suñu waxtu bu ma sàkkoo itam rek lu ma sàkku rek nga jox ma ko jox ma li ma li nga ma tànn lépp lii jox nga ma ko noonu lii da nga ma cee sant ma ma sàkk ko ngir ma am tuyaab boole tuyaabay sàkku ak amut li ma li may wut kon ca waxtu nga xam ne ca laa ko soxlaa bëgg ko sàkku ko ca nga ma ko joxe kon dara gisul ndax dégg ngeen waxaatal bayit bi ah tey tamit jàng naa àdduna salabi xam ngeen salab lu mu doon mooy waaw wa li taxu du suxla soxla mooy li nga soxla di ko laaj duuna tale bi ba waxtu tale bi wala duuna tale waxtu tale bi waxtu tale bi waaw ci waxtu ma ko sàkkoo lu ma sàkku ci yow rek lu ma sàkku ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom ñaan naa ko ñett mu may ma benn bi xañ ma ñaar yi waxam lu mu gaaw dana euh. maanaam nga xam ne kon du caa génne xaritu yàlla lu mu laaj suñu borom rek mu def ko léeg-léeg mu may ko léeg-léeg mu gànt ko fekk na nag gàntu ga moo gën ci moom te xam ko lii tamit ba aw bayit la muy faxumtu majsuban ilayka minka dika alayka wa raditu anka maanaam ak leeral ci bayit boobu mooy rek dañ ne ci liggéey lu la jot mu ne damaa feebar lu la feebar mu ne sump lu lay faj mu ne sump فقمت مجذوبا اليك منك بك اليك وراجعت عنك فقمت مجب مجذوبا بكل خج الجذب ak al ittiba'u ak al ikhtiyaaru moo am ñu xëcc ma jëme fan jëme ci yow fuñ ma jëme fuñ ma jëme fuñ ma jëme ci yow fuñ ma jëme ci yow madzuman ilayka minka bikka ana liñ ma xëccee bikka ci yow yaay buum gi ma gi ma ak li ma xëcc fiñ ma jëlee mooy yow fiñ ma jëmee mooy yow bikka alayka bikka alayka alayka it tey xëcc googu ak coono ba li ma ci wut lépp yow la ci yow la war a gisu an ko sama gërëm la nag ci yooyu yëpp dégg ngeen bu ñëkk bi dafa ne ida katabtu ابتسم المصباح أها له نباح واو إذا كتبت ابتسم المصباح وفر إبليس له النباح okay. وسبحت آواو آه، آواو آه. آه، طيب. إذا كتبت ابتسم المصباح وفر إبليس له النباح إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائكة الطباقي waaw te moom xam nga mu ngi aju ci man nañ koy accéléré ci man rek mën nañ ko def par ordre d'arrivée bu ñëw rek nga xam ne kenn ko recevoir mu teg ko mu def nii mu def ko nii suuf bu ñëw mu def nii bu ñëw bu njëkk bu ñu bu njëkk baytu bu njëkk bi ci firim wolof isa katabtu waxtu boo xam ne bind naa ibtasama muuñ al misbaax lamp ba wala leeralkat ba mu gën a yaatu wa farra te daw iblisu iblis lëgoo ñeel ko an baax ak ngaw ne xaj di boobu bi ci des na isakaratu bu ma bindee tësa jaayu arsul baax yi aji des ji te mooy suñu borom mooy ci fi dul jóg mba ba wa sabaxat te sabba malaayikatu tibaax yi malaaka yi diile yi maanaam asamaan yi nde si mooy safaanoo laa fi gis ak dégg laa tuuti safaanoo lu safaanoo maanaam ñu dégg waaw ak dégloo tuuti. ngeen dimbali ñu bokk ñu déglu. Eh, ndax ñu déglu leen toog toog leen déglu waxtaan bi. waaw ci toog nag ci toog. teg leen déglu waxtaan bi ki yor laaj yi da ko andi te incha allah dinañ ko def. waaw kon def ko jot a laaj yi dinañ ko laaj waaw. mais ñu may leen may leen ñu teg ci ndaw ñu toog. andi leen laaj yi ku njëkk a laaj yi njëkk laa tontu am nañu laajoon bu yàgg ñoo xam ne tontu wuñu leen ki yor laaj yi na ko andi. waaw da nga da nga wuy ma. indi laaj rek jox ko sëñ Moussa ñu ñu dindi ci ay laaj yi gën a kii na rek. na ko daal ñu ñu seetlu ci gën a important rek. waxtu ma bindee leeralkat bi mooñ iblis daw ndi mbaw ne xaj waxtu ma bindee rek yonent bi sallallahu alayhi wa ree maanaam bépp bare fu yonent bi bëggee iblis am lu ko naqari daw gi muy daw daf koy booleeg foroxte moo tax am foo xam ne iblis xamal ko ma maahu xam wala hu duraatu maanaam day daw ba noppi ànd ak ay foroxal di daw di foroxal <laughs> bii day daw bi mbaw mbaw yi ne xaj yeneen bayit yi mu wax ci ne waxtu ma bindee rek aras jaayu malaayika yi diilee asamaan yépp sabba waaw bu njëkk bi ci sataru ñaareel bi wax bu farra iblis un ba wax na ida katabtu aw qara'tu har wala iblis fawran ma aman taqawala waxtu ma bindee wala ma jàng rek iblis daf nan bëxër ñett di daw ànd ak képp koo xam ne yaa ngi ci ak neen yaa ngi ci caaxaan képp koo xam ne yaa ngi ci ak dóor kookoo ko ko ay yoon wax na ko ci bari lu waxtu ma bindee itam yonent bi sallallahu taala alayhi wa maanaam maanaam mooy mu dëkk wax na ne ko xam ne bi baqaa iya nabi sara ba satar bi ko jiitu ci jaawartu la baaxa bi allahu alkiram alxurra aw bi baqaayi nabiya sarra suñu borom damoo na ma ci kanamu gaañu baax yi te yonente bi sallallahu alayhi wasallam sama dund gi may dund ci àdduna bégal na ko maanaam li may jëf ci àdduna bégal ne ko te li muy jëf lépp wax na ne tagg yonente bi sallallahu moo ci li nga xam ne moo koy taxañal yoon muy bi muy dox jëm ci yàlla àgg àggagul woon ba tey kooku dafa dellu si ba tey dafa firi baytu euh, satra bu njëkk bi iza karatu aw qaratu har wala boobu dellu moom it daal di chara sataru ñaareel bi ci euh, xaqa euh, kii baytu bu njëkk bi baytu ñaareel bi nga xam ne ci la waxee iza kataftu tarfa arshul baaqi wa sabahat malaikatu baaqi waxtu woo xamee ne bind naa rek arsh jaayu naa moom nee na sama bind moom a moo gënal suñu borom gënal yonent bi bind mbindum képp keneen ku dul man te arsh dana jaayu ngir jëf ju rafet ju mu doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ihtazza al arshu li mawti saadin maanaam saad ibnu muaaz aras jaayu na ci deewu saad ibnu muaaz saad mu muaaz ci saaba yi la bokkoon bokk bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo gën a jàmbaare seen ngëm gën a rafet mu bokk ca bi mu faat def nag jëf ju rafet yoo xam ne yonente bi bëgg ci bi mu daataan faatu mooy ci fat fa xaybar bi ñu ko indee ngir mu atte yahut yi bi nga xamee ne dañ leen a bloqué ba mënuñoo génn te yonent bi am fi ay weer ñu am dund doy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nañ dagg tàndarma yi ndax tàndarma yi ñoom bu ko daggee a muñ daañu wàcc bi ñu commencé dagg ñu daal di yokk ci kaw ne Muhammad yow da nga daan tere yàq yaa ngi yàq alquran ne wa qatabtum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wala yukhzil fasiqina bi ñu nangoo wàcc ñu ne ko nanu wàcc nangu danoo wàcc ci kaw wàcc tata yi ñëw ci àtte kenn ci saxaaba yi ñu ne mu ne leen tànn leen ñu tànn Saad ibn Muaz bi nga xam ne seen xarit la woon Saad ibn Muaz fekk fett gi nga ko fettoon ci xandak góom bi bi ci bi saret bi mu war mu yëngu mu ubbi ko waat di nàcc bi mu àttee ne nañu rey góor ñi jàpp jigéen ñi jaam jaayi leen yonent bi sallallahu alayhi ne koo yow sa sa atte atte si borom ci ñoom mu daldi di faatu bi mu faatoo la yonente bi sallallahu alayhi wasallam ihtazza arshu li mawt sa'd ibn mu'adh lépp lo xamne neex na yàlla ci màggal ko ak sàbbaa ko ni nga xam ne noonu la ñu wutee xeetu malaayika wu nekk ak nañuy jaamoo ñii dañuy rukoo duñ sigg mukk ñii sujjóot duñ sigg mukk ñii taxaw duñ sëgg mukk ñii di sabbaa di sabbaal suñu borom ñi nga xam ne nag ñoo jagoo sabbaa ñooñu ñooy sabbaa waxtu wëpp boo xamee ne jot nañ ndigal ci xew-xew bu rëy am na bu neex yàlla ak yonent bi ñu saa ñu sant leen ñu sabbaa noonu nga xam ne noonu la waxe kitaabati te duru taxtal arshi ba na firaadi maanaam ñaari bay ci insha allah tabaraka wa taala تدل مرسلة للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفعي تزيين ما مجتل لغا خمنا سبب سحمل المشفع ميال كل رم ملوكا تنجل دل ما يكي يجب لل الشفاعة الكبرى الشفاعة الكبرى ما تحمل يا نبي صلى الله عليه وسلم يوم دي كيف كي على الدولة يوفر الدولة نحن فورا يوم الخيام رجي تتخب لتخيه جون في جمعي أك جنت لي لانغ بلال بوك ني سين يوري دي خت كبو دو ناخ بابا دي خيونا ndax de ca ëfu bufte bu njëkk bi la dee la dee dee woon waaye nag bu ñu demee ba ñuy nekk àjjana ñuy nekk safara lañ koy jëmmal mu nekk lu mel ne lu ñu tuddee xarum teereer miir bu gàtt bu séparé àjjana ak safara ci lañ koy tëral woo yonent yàlla yaxya mu ami paaka bu day nii mu ñu woo waa safara ba ñu wuyu ko mu ne leen xam ngeen kii ñu ne ko waaw ku boofuñ kooku musiba mi dal moo ko indil ndax bu ñu deewul woon duñ ñëw ci mbugal mu ne waa àjjana ndax xam ngeen ki ñu ne ko waaw waaw kooku de yàlla na ko yàlla barkeel moo tax ñu ñëw ci àjjana ji tedd ji neex ji mu daal di ko ne deq ren bi pour nit ñëpp naagu ci ne dee dootu amati waaye dee ci ëpp boofu buufte bu njëkk ba ca la dee xewee bu ko defee nag bu ñu taxaw euh, juróom fukki junni at yooyu ba yonent bu nekk ñu dem ca ne ko nga intervenir maanaam nga ràmmuñu ci kanamu sum borom ba mu àtte jaam ñi donte dañuy dugg safara sax moo ñu gën a lii ñu nekk kenn ñëwu la gën lu dul Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo xeet ni jaam yëpp yéefar ak jullit ak benn xeetu yéefar bu mu doon bis boobu ba suñu borom àtte jaam ni ñu jëm fa ñu jëm ñu ko toppee day gudd moo tax ñu ne euh, al mushaffa mooy kañu ràmmuloo aw walan maanaam qabla ashufaa ñun nag mbiccal tasdir bu ko arab waxee na nekk tey am na benn mawdo maanaam xew-xew boo xam ne da nga cee war a wax nga nekk shaayir poète di waykat nga wax ci juróomi bayt beneen shaayir daal di ñëw def ko tasdir maanaam yokk ci yokk ci leneen lu bari ñu ne زين فلا الشاعر الفلاني قصيدة الشاعر الفلاني قصيدة الشاعر الفلاني loolu mooy ñu xam ci tasdil loxatal tasdil mu ngi jëkk ci zeylu zeylu mooy mbicc mbicc xam nga ne mooy féete suuf mooy li yokk fii ñu ci jublu fulliwaat leeralaat ba jaam ñi xam ku xamul woon xam ku déggul woon dégg ku gisul woon gis li nga xam ni sax na ñeel ku ñu do ku ñu ku ñu romb loo ci te mooy yonente bi sallallahu nga ne li ko suñu may suñu borom jox na ma secret bopp ma mën a feeñal ngëneel yooyu xëcc ko ba mu jege jaam ñi ba ko war a texe texe loolu nag gi may mbiccal li nga xam ne moom la ñu jagleel rammukat bu mag boobu leen doy na ma ba sama ndeyjoor bi du fab gànnaay di aar boppam maanaam tagg gi may tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu waxee ne waxtu wu may tagg yonent bi damay jéggi yoonu gaa yu baax ñi dama koy tàñ ba dem ba loo xam ne lii maa ko leen waaye yàlla war na koo liggéey ci fukki at ma liggéey ko ci genn guddi wala benn bés wala benn weer mooy bi wax ne طويت طريق القوم وقت امتداحه ولي قد قضى الحاجات بالروض والبسط noonu nga xam ne bu dee tagg yonent bi suñu borom moom la ko jagleel yim ci mën a am mbindeef mënu ko ci am te mbindeef mësu ko ci am te mbindeef dootu ko ci am ni nga xam ne noonu la koy taxañale yoon yi nga xam ne ay jafeñ-jafeñ la te dafa gudd yàgg مثل واخني كلما عظم المطلوب وشربه صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته وخمني يونو يالا نون لا غودي ني تخانيال كوكو ci saw ba tag bi muy tag yonante bi noonu mu koy xëccee ci muy dox dox bu gaawee noonu ba àgg ci boromam noonu la koy segale lépp lu ñaaw ak lépp lu aay ak lépp pexem noonu wax na ko ci yeneen xasida ci yeneen bay te tasiru ma sabat lil musafi ak naa yoon nii an azam ba kenn du ma lor du ma lore du ma défendre du ma défendre sama bopp ci gànnaay wala ci pexe lu dul yàlla wala laa difaawu laay naas baax inna laa yudaa fi amul lazina amanu secret ba dafa ñëw daf koy ñëwal lu mooy bi fadli man waada an yi daafia ñu ko waxee ci nahdi qadail xaaj